salaamaaleykum chers internautes univers info TV day nekkaat mbégte ànd bi nga xam ne moom ngeen di ànd ak ñu ak contentement waaye tamit ravi de vous retrouver sur univers info TV tey nag dañoo ñëw seet si euh, koo xam ni kenn dootu ko présenté euh, ci expérience bi nga xam moom la am ci làmb muy Père Max dama koy bàyyi mu daal di nuyoo rek la temps ñu daal di dugg ci li nga xam ne moo di waxtaan wi salaamaaleykum Père. maaleykum salaam euh, di sant yàlla bu baax rek. julli ci yonentam bu tedd bi gërëm suñu ñaari waay jur comme ni ma ko farataale di wax rek jóge nañ ci màggal dëgmal gàmm fu waaye di gàmmoo rek yàlla la yàlla yóbbu ci jàmm te lu ñu fa ñaan yàlla ko yàlla nangu. Mhm. waaw pare nag ci tontu say laaj. maa mhm. fi mhm. waaw. Euh, père euh, ñu daal dem la fois passée fi nga xam ne moo di Gambie def euh, signature bi ki nga xam ne moo di Modou ak Eumeu Sène ñu bëggoon a xam rek analise bi nga xam ne moom nga fa am. waaw Modou Lo Balde. Ama Balde. analyse ma ci am rek mooy. gis nañ ne comme dab rek la doon am moo amaat ba léegi ko signature bi amul te mooy seen quatrième signature benn rek moo ci am mooy bi ñu yóbbu woon boori mbuur ci EDK ba mais bi ñu def seen TV dafa avorté bi ñu waroon def fii ci arène national dafa avorté bi ñu def Gambie it gis nañu ne ci dîner de gala la confrontation am ñu xeexoo ba dimanche bi la ñu waroon def face to face bi dañ ko mujj annulé. muy quatrième fois loolu nag ñu koy ñaawlu ñu koy ñaawlu baaxul ci ñaari mbër yëpp baaxul ci làmb dëgg la waaw ah, dafa jot ci ñu tàggoo contrat bi ñoom ñaar dem witi leneen loolu moo gën a rafet. Mm-hmm. mais lu luñ dëgmal mu yàqu loolu baaxul loolu dañ koy ñaawlu. Mm-hmm. nit ñi ñu ngi naan Ama Baldé dafa toog li nga xam ne moo di quatre ans bëriwul est-ce que bu ñëwoon tey euh, côté nee nañ moo am sabotage. ki nga xam moo di Ama Baldé. waaw am na ñu ne fa a jóge am na ñu ne ci côté Kër Ama la histoire bi am mais man ginaaw ba demoo woon euh, mais ak côté bu mu jógee rek rafetlu wuñ ko. Mhm. problème bi man li ma gëm mooy nañ jàppale mbër yi ndax mbër ku ànd ak yow boo xeexee ba sa événement yàqu moom bu xëyee day liggéeyi. Mhm. yow nga am làmb Ama Baldé génération bi yëpp depuis bi mu jëlee avance Modou ba léegi ñii bëri nañ ay trois combats ñii bëri ay quatre combats moom ba léegi mu ne ci benn avance mënu ko bëre. Mhm. te yaakaaru lu dul làmb. Mhm. kon képp képp kuy ànd ak moom mën nga gis histoire sax fexe histoire bi bañ a am. ngir mu mën a làmb ji mën a am mu mën a tàggoo contrat bi dem witi leneen mais benn contrat téye la romb na quatre ans bëgg a dugg ci cinquième année bi ba léegi mën a koo bëre. arène nationale bi boo waxee mu ne ay toolam la ba léegi bëreegu fi. kon booy jàppale mbër bul seet rek sa xadar wala nga ne dañ maa tooñ danañ la tooñ sax nga bàyyi mu sedd pour sauver événement bi mais loolu daal dañ koy ñaawlu man dama leen a yërëm ndax njaboot lañu su ma soñoon làmb ji day jeex kii daan daan ki daanu daanu làmb ji continuer ndax ñoom am na yeneen di adversaires yu leen xaar yu war a bëreek ñoom mais benn contrat téye la euh, mënoo def sa benn activité loolu yow mi ànd ak mbër mi da war a yërëm mbër mi mais booloo xoolee sa bopp. ne Ama laa àndal noonu nga war a xoolee ki ànd ak Ama ki ki ànd ak Modou Lo yéen ñëpp yéen a war a bokk ndey bokk baay parce que du ngeen ay ennemis ay adversaire rek pour benn tàkkusaan bu jeexee lu ne day am su jeexee ku ne day dem defi leneen te booy see mbër di ñaanal adversaire am jàmm bu amul jàmm yow doo bëre su amee blessure yow doo bëre kon nañ fexe làmb ji am ci jàmm ñu jël yëpp def ko ci suuf bu ko defee ñu bëre que le Euh, ñiy faral di wax ni que li tax sabotage bi am mooy Ama boo ko xoolee physiquement dafa parewul. waaw noonu loolu man sax dégg naa ñu koy wax man gëw ma loolu. Ama ni mu bëggee combat bi xaru ci combat bi ne moom ñëwul rek pour bëre dafa ñëw pour doon roi des arènes xalaat naa ne bu parewutoon du forcer pour ñu bëre la 5 novembre man naa xaay ba saison bi ne ci digg bi mm-hmm. pour mu pour mu bëreeg Modou loo mm-hmm. mais xam nga. léegi nag ku ney wax mais Ama parewul moom man mënuma koo gis lu mënuma ko gëm lu dul ñu sumeeku ci géew bi ma gis Modou Lo gën ko état de forme mais nit sul blouson romb la wala mu sol yére yu wala foofu ñëw romb la nga xool ko rek ne parewul gars yi da xaw ma ay expert <laughs> ay expert lañ xamul lu ñu doon mhm. mais daal Modou Lo Ama xam naa ne combat bi bu ci parewul dafa yeb waa Pikine yi mhm. waaw tey boo xoolee bi muy ñëw état bi mu indi mooy dafa tuuti est-ce que loolu arrangé na ko pour bëri ak Modou Lo. waa xam nga tuutiwul ba Modou ëpp ko ndax boo indee poids ñu ne arrangé wu ko làmb ku ne xalaatam boo indee benn poids ñu ne Modou boo gaawul mënoo ko daan ndax dafa dafa dafa dafa dafa mobile dafa rapide. Mhm. kon mu indi benn poids bi ñu ne poids bi mu indi daa tuuti. Mhm. te moom ñu ko dar ay ndaanaan lañ ama dafa juddu fekk ngembali ci kër gi. Mhm. xam na lan mooy làmb. ndaanaan la jaar na ci papaam ay magam ba léegi ay jarbaatam ak doomam di bëre. kon kooku xam na lan mooy làmb mais dama ne Ama yabul waa Pikine bay jëlal Eumeu Sène revanche ndax bul fàtte ne Mod euh, roi des arènes bi Modou pikin la ko jëlee Ama dem war a jëlal Eumeu Sène revanche di bëreeg Modou Lo te parewul Ama yabewul noonu waa pikin mhm. man gawma loolu suñ ba bu ñëwoon nag ba ca bisu làmb ja moo doo indi état bu ma indiwul won ko ne ko maa la gën a pare su boobaa laay gën a gëm wax boobu mais ay waxi kese nii rek man mënu ma gëm loolu. Mm-hmm. tey expérience bi nga xam am ci làmb tey boo doon favoriser ñoom ñaar ban kan nga ciy favoriser. du kenn xam naa ne ñoom ñaar ku ne mën ngaa daan sa morom ndax ñoom ñaar ay mbër yu ñeme lañu ay attaquant lañu te du ñu tricher ci làmb. Mm-hmm. moo tax ma bëgg rek ñi leen di gunge jàppale leen ni ngeen leen di jàppale mooy ñu fexe ba événement yeeg li am yëpp dara bañ cee yàqu. ba le 5 novembre ñu dugg si ci làmb ji ànd ak seen préparateur mystique yi ànd ak seen écurie sotti koo gàllaaj yi def li ñu war a def di wàññeeku ba mu des kenn dem ba ci digg géew bi ñu ne Modou pare nga Ama pare nga ñu bëre. Mm-hmm. contrat bi dog leen a wàcc mi fii ak ñi ngi koy yàq contrat bi du leen wàcc kon nañ dimbale mbër yi. Mm-hmm. pour ñu bëre que gañ làmb ji mën a continuer. Mm-hmm. tey boo nekkoon coach Modou tey lan nga koy wax tey boo nekkoon coach waaw Modou Lo su ma doon coach am mooy euh, li ko gars yi naan Ama parewul bu mu ko gëm. Mm-hmm. ah loolu dama koy wax loolu laa koy wax dama naan ko li la gars yi parewul bu ko gëm ndax Ama daan la rek la bëgg. Mm-hmm. pour doon roi des arènes kon parewul moom bu ko gëm. Mm-hmm. su ma doon coach am loolu laa koy wax waaw. tey gis nga ni dafa euh, làmb ji day gaaw wala làmb ju yeex lay doon. waa xam nga xam naa ne bu gaawee euh, lu ne mën na ci am mais bu yéexee mën naa doon avantage yu Modou ndax moo gën a bëri lu mu bëre combat bu yàgg ba ay décision arbitrale euh, gagné na ci ay combat ci combat yu duré kon damay xalaat ne bu duré mën naa doon avantage yu Modou Lo mais Ama nag façon bi muy bëree bu ko changé wul gaw mu bëre combat bu yàgg ndax man foo taxaw ci sa kaw la jëm attaquant la laaj naa ko Modou sax ci seen signature ba fële euh, mbuur ma ne ko dañ ne li ngay bañ la Ama di bëre bu arbitre sifflé da lay sëkkatal mu ne ma bu ma sëkkatalee dañuy daje mu ne ma bu ma sëkkatalee ma ne naa mu ne ma dañuy daje. kon moo lay wan ñoom ñaari mbër yi bëggante nañ ku ne xam nga. waaw làmb nag moo demee noonu. ñaari mbëri seen dayoo moo tool noonu mais ñi leen dimbale rek nañu indi mental tuuti pour jéem a sowee làmb ci man loolu laa gëm. tey yaakaar nga ni ci xeex lay jeexee wala ci bëre. waaw tout est ñoom mën nañu xeex jël la am mën nañu dóor nit mu kawote mën nañu dóor nit mu mu tërëbise ñu dal ci kaw mu daanu maanaam du ma écarter dara. Mm-hmm. mën na jeex ci xeex mën na jeex ci bëre. ci combat boobu ndax ñaari bagarreur lañu waaw. mais est-ce que jàpp nga ni làmb bi dina am sécurité vu que ni mu terminé Gambie. waa mais xam nga sécurité bi moom ñoom ñëpp ñëpp ko war a bëgg il est temps que mbëri communiquer ak seen waa kër yi parce que si imaginel bu ñu ba ci biir làmb ji làmb ji yàqoo ci biir làmb ji te amul. Mm-hmm. mais mbëri duñ fayu. Mm-hmm. te combat bi dañ koy jàppaat. su boobaa dimbale woo mbër mi ñaari camp yëpp muy waa parcelle nee naa la fi ak dugg siwun ci làmb ji ànd ak seen staff ànd ak seeni gàllaaj ba dem ci digg géew bi jot ba ñoom ñaari mbëri arbitre sifflé ñu bëree contrat bi wàccagu leen kon li jaadu mooy ñu accompagner mbër yi jàppale leen ba arbitre sifflé ñu bëree que gañ su boobaa la contrat bi di doog a jeex kon nag boo bëggee mbër mi mu signé contrat da nga ko war a jàppale ci réussite événement bi waroo bàyyi benn détail loolu mooy li jaadu. waaw te instant bi dañoo jour dañoo gis ni que mbëri euh, dañuy jël li nga xam ne moo di certificat médical di ko joxee nu mu leen neexee ba ba tax na yu bëri sax ñi ngi annulé lamb bi à cause de loolu. waaw loolu sax am na benn euh, lu ci CNG génne. Mhm. Euh, xam naa danaa la ko wan di nga am. Mhm. ndax léegi laa ko jot bi ma signé contrat cité bi léegi ak la de guerre. Mhm. mujj na lu CNG bind. wane nañ ko léegi médical boo signé combat mi ngi nii léegi combat bu ñu xas régularisé doo toog ba mu neex la rek nga indi sa médical ci bitti pour reporter làmb ji léegi combat bu ñu xas régularisé pour ñu reporter làmb ji boo xalaatee ne danga am blessure wala nga feebar da ngay ñëw ci médecin wu seen CNG bi buñ xoolee ne mënatoo bëre ci lañ lay dogo bindal médical lañ doon wax rek de boo indee sa médical dugal ñu ne docteur du weddi morom ma CNG def contre expertise yooyu yëpp dindi nañ ko léegi combat buñ xas régulariser pour ñu reporter ko. Mhm. da ngay ñëw ci médecin wu CNG bi. Mhm. ñoom ñoo lay bindal médical report da ko am. Mhm. loolu lu bees la mi ngi nii. mu nekk tamit lu am solo euh, tamit mbëri ñi ngi kaas ni ko euh, waa CNG maanaam bu ñu feebaree te ñoom ñi ngi fay assurance. waa mi ngi fay assurance mais xam nga loolu moom dañ koy wax rek xam naa ne blessure bi daal ci saa si booy doog am blessure ci terrain bi ci jouru combat bi ndax ndax assurance bi ci bésu combat bi rek la nag. Mm-hmm. mais du après combat. Mm-hmm. mais biir combat nag boo ci amee blessure wala dara am na nooy toppatoo am na fooy jaar am na procédure booy jaar. Mm-hmm. bu ko defee CNG assurance bi ñu signé mbër yi danañ la danañ la topp pour faj la mais waxuñ nag ku gaañoo feneen mais ci biir combat boo gaañoo dañ la d'ailleurs boo gaañoo sax dañuy jël sa licence boole ko kii nga moom lañ la yóbboo hôpital boobaa am na lu lu lu assurance bi di du jël en charge mais yegg guñ ci nag fu mbër amee blessure rek assurance bi jël en charge non yeggaguñ foofu. Mm-hmm. comme feebar bi la ñuy wax des fois mbër feebar. Ah, gis nañ sax am na ñoo xam dañ leen di ketal. Euh, wala dama la ko leeral. yow koy après ku ne wax xalaatam dama ne la assurance foofu rek lay jëlee en charge. Mm-hmm. jouru combat ku gaañu ci combat bi. Mm-hmm. leneen li assurance bi yoonam nekku ci. waaw looloo am. dëgg <laughs> kon tey Père Massa soo doon bàyyi li nga xam ne moo di conseil yu mbëri que ça soit mbër bi ak li nga xam ne moo di amateur bi pour làmb ji mën a neex wala jeex ci jàmm ku ne dem sa kër tey lan nga leen di wax. waa ñu defaraat jikko yi rek sa caméraman xam nga fii di nga mën a jël xoola stade bi ni mel xoola. Mhm. xoola chaise yi ni mu dam moom xoola. Mhm, mhm. xoola chaise yi te yëpp fan see koy jël di ko sànni ah te bijou bi ni mu rafetee ñëpp rafetlu ko xool ni mel yaa ngi xool gis nga. gis nga rouge bi. xoo gis nga bleu bi ci kaw gis nga dara lépp xale yi koy damm di ko sànni. de bu sa mbër daanee nga damm sées. Mhm. te li ci gën a métti mooy sa mbër day daan sax nga damm sées waxuma la ñu daan ko nag sa mbër daan nga kontaan jël sées di damm. Mhm. waaw lu yooyu yii dafa war a jóge. mbër mu ci ne sa morom mooy sa trésor. ay adversaire ngeen pour ay minutes mais du ngeen ay ennemis nañ ko xam. dëgg te it nag boo yàqalee mbër mi ne moom nga bëgg. Mhm. te mbër mi yaakaar làmb rek. bu làmb ji tëjee yow da ngay liggéey mbër mi moom def lan lu muy dundee du mooy perte mm-hmm. jot na pour ñuy jàppale mbër yi xam loolu mm-hmm. xam ne mbër yi duñ ay ennemi ay adversaire lañ pour benn moment mm-hmm. bu jeexee ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax bu boo bàyyee da ngay bokk ci regroupe da ngay bokk ci euh, regroupement yi rek les sages Tapha Gueye ko jiite ay ancien gloire rek a fa ne ancien gloire yi Manga 2 ko jiite ay adver ay ancien gloire rek a fa ne te ñoo daan bëre kon nañ ko rafetal ndax lu yàgg-yàgg dafay jeex. Mm-hmm. loolu laa mm-hmm. am la bu ma leen di xam ne moo di Siteu bi ak euh, mooy li nga xam ne mooy contrat bi bi nga signé nan nga gisee sa sa mbër. ah non di ko waajal rek di waajal xam nañ ne combat bi mag lañu am. Mm-hmm. mais ñeme nañ ko bëgg nañ ko nag. waaw ñeme nañ combat bi bëgg nañ ko. xam na ne kin dajeeg neexul a daan. mais ñun ki ñu indi wóolu nañ ko nag. te bëgg nañ combat bi lool te ñu ngi ciy am yaakaar. Mhm. Uh-huh. donc merci beaucoup Père Amalgane ñu ngi lay bàyyi nga daal def sa kàddu gu mujj rek ñu daal di jël li nga xam ne moo di kàddu gi. daal waaw euh, di sant rek di jégalu nag ci yeneen siidi buñ ma gisee nga jël ma dana xaw a ndax man damay daw siidi. dëgg la euh, dawuma ko ngir mais xam nga euh, damay bañ a juum ci kàddu. Mhm. waaw ndax moo tax bu ñu la làmbool ak jaay connaisseur. ba ngay juum doo ko tey mais léeg du mën a ñàkk ndax it nag ñi ñu jiitu woon noonu lañ ñu doon jàppale di ñu ko yombalal mhm. tey yow it ngay xale bu yaru mhm. euh, léeg-léeg sax ma gànta la ba defe ne dangay ngay mhm. ci laa xam ne tàggat nañ la ci ci métier mi ndax yow yaa soxla yow mi soxla waroo xaddi dëgg la waaw ñu ngi lay ñaanal rek bonne continuation Sénégal jëm kanam jërëjëf. ok donc merci beaucoup li la la indiloon ci biir Univers Info TV di leen wax chaque jour daw leen gaaw ngeen abonné le meilleur reste à venir ak Univers Info TV l' formation dañ leen koo jox ba mu mat sëkk merci beaucoup. <laughs> salaamaaleykum chers internet univers info TV day nekkaat mbégte ànd bi nga xam moom ngeen di ànd ak ñun ak contentement waaye tamit ravi de vous retrouver sur univers info TV euh, tey nag dañoo ñëw seet si euh, koo xam ni kenn dootu ko présenté euh, ci expérience bi nga xam moom la am ci làmb muy Père Max dama koy bàyyi mu daal di nuyoo rek la temps ñu daal di dugg ci li nga xam ne moo di waxtaan wi salaamaaleykum Père. maaleykum salaam di sant yàlla bu baax rek. julli ci yonentam bu tedd bi gërëm sunu ñaari waay comme li ma ko farataale di wax rek jóge nañ ci màggal dëgmal gàmm fu waaye di gàmmoo rek yàlla la yàlla yóbbu ci jàmm te lu ñu fa ñaan yàlla ko yàlla nangu. Mhm. waaw pare nag ci tontu say laaj. maa mhm. fi mhm. waaw. Euh, père euh, ñu daal dem la fois passée fi nga xam ne moo di bi def euh, signature bi ki nga xam ne moo di Modou ak Eumeu Sène ñu bëggoon a xam rek analise bi nga xam ne moom nga fa am. waaw Modou Lo Ama Balde. Ama Balde. analyse ma ci am rek mooy. gis nañ ne comme dab rek na doon am moo amaat ba léegi ko signature bi amul te mooy seen quatrième signature benn rek moo ci am mooy bi ñu yóbbu woon boori mbuur ci EDK ba mais bi ñu def seen TV dafa avorté bi ñu waroon def fii ci arène nationale dafa avorté bi ñu def Gambie gis nañu ne ci diine de gala la confrontation am ñu xeexoo ba dimanche bi lañu waroon def face to face bi dañ ko mujj annulé muy quatrième fois loolu nag ñu koy ñaawlu ñu koy ñaawlu baaxul ci ñaari mbër yëpp baaxul ci làmb dëgg la waaw ah, dafa jot ci ñu tàggoo contrat bi ñoom ñaar dem witi leneen loolu moo gën a rafet. Mm-hmm. mais lu luñ mal mu yàqu loolu baaxul loolu dañ koy ñaawlu. Mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi ñu ngi naan Ama Baldé dafa toog li nga xam ne moo di quatre ans bëriwul est-ce que bu ñëwoon tey euh, côté nee nañ moo am sabotage. ki xam moo di Ama waaw am na ñu ne fa la jógee am na ñu ne ci côté Kër Ama la histoire bi am mais man ginaaw ba demoo woon euh, mais ak côté bu mu jógee rek rafetlu wuñ ko. Mhm. problème bi man li ma gëm mooy nañ jàppale mbër yi ndax mbër ku ànd ak yow boo xeexee ba sa événement yàqu moom bu xëyee day liggéeyi. Mhm. yow nga am làmb. Mhm. Ama Baldé génération bi yëpp. depuis bi mu jëlee avance Modou Lo ba léegi ñii bëri nañ ay trois combats ñii bëri ay quatre combats moom ba léegi mu ne ci benn avance mënu ko bëre. Mhm. te yaakaaru lu dul làmb. Mhm. kon képp képp kuy ànd ak moom mën nga gis histoire sax fexe histoire bi bañ a am. ngir mu mën a làmb ji mën a am mu mën a tàggoo contrat bi dem witi leneen mais benn contrat téye la romb na quatre ans bëgg a dugg ci cinquième année bi ba léegi mën koo bëre. arène nationale bi boo waxee mu ne ay toolam la te ba léegi bëreegu fi mhm. kon booy jàppale mbër. bul seet rek sa xadar wala nga ne dañ maa tooñ danañ la tooñ sax nga bàyyi mu sedd pour sauver événement bi mais loolu daal dañ koy ñaawlu man dama leen a yërëm ndax njaboot lañu su ma soñoon làmb ji day jeex kii daan daan ki daanu daanu làmb ji continuer ndax ñoom am na yeneen di adversaires yu leen xaar yu war a bëreek ñoom mais benn contrat téye la euh, mënoo def sa benn activité loolu yow mii ànd ak mbër mi dangaa war a yërëm mbër mi mais booloo xoolee sa bopp ne ama laa àndal noonu nga war a xoolee ki ànd ak am ki ki ànd ak Modou Lo yéen ñëpp yéen war a bokk ndey bokk baay parce que du ngeen ay ennemis ay adversaire rek pour benn tàkku saan bu jeexee lu ne day am su jeexee ku ne day dem defi leneen te booy see mbër di ñaanal adversaire am jàmm bu amul jàmm yow doo bëre su amee blessure yow doo bëre kon nañ fexe làmb ji am ci jàmm ñu jël yëpp def ko ci suuf bu ko defee ñu bëre que gañ ñiy faral di wax ni que li tax sabotage bi am mooy Ama boo ko xoolee physiquement dafa parewul. waaw noonu loolu man sax dégg naa ñu koy wax mais man gaw ma loolu. Ama ni mu bëggee kombaa bi xaru ci combat bi ne moom ñëwul rek pour bëre dafa ñëw pour doon roi des arènes xalaat naa ne bu parewutoon du forcer pour ñu bëre la 5 novembre mën naa xaay ba saison bi ne ci digg bi pour mu pour mu bëreeg Modou Lo mais xam nga léegi nag ku ney wax. mais Ama parewul moom man mënuma koo gis lu mënuma koo gëm lu dul ñu sumeeku ci géew bi ma gis Modou Lo gën ko état de form mais nit sol blouson romb la wala mu sol yére yu wala fam ñëw romb la nga xool ko rek ne parewul gars yi da xaw ma ay expert <coughs> ay expert lañ xamul lu ñu doon mhm. mais daal Modou Lo Ama xam naa ne combat bi bu ci parewul dafa yeb waa Pikine yi mhm. waaw tey boo xoolee bi muy ñëw état bi mu indi mooy dafa tuuti est-ce que loolu arrangé na ko pour bëri ak Modou waa xam nga tuutiwul ba Modou Lo ëpp ko ndax boo indee poids ñu ne arrangé ko làmb ku ne xalaatam boo indee benn poids ñu ne Modou boo gaawul mënoo ko daan ndax dafa dafa dafa dafa dafa mobile dafa rapide. Mhm. kon mu indi benn poids bi ñu ne poids bi mu indi daa tuuti. Mhm. te moom ñu ko dara ay ndaanaan lañ ama dafa juddu fekk ngembali ci kër gi. Mhm. xam na lan mooy làmb. ndaanaan la jaar na ci papaam ay magam ba léegi ay jarbaatam ak i doomam di bëre. kon kooku xam na lan mooy làmb mais dama ne Ama yabul waa Pikine bay jëlal Eumeu Sène revanche ndax bul fàtte ne Mod euh, roi des arènes bi Modou pikin la ko jëlee Ama dem war a jëlal Eumeu Sène revanche di bëreek Modou Lo parewul Ama yabewul noonu waa pikin mhm. man ma loolu suñ ba bu ñëwoon nag ba ca bisu làmb ja moo doo indi état bu ma indiwul won ko ne ko maa la gën a pare su boobaa laay gën a gëm wax boobu mais ay waxi kese nii rek man mënu ma gëm loolu. Mhm. tey expérience bi nga xam moom am ci làmb tey boo doon favoriser ñoom ñaar ban kan nga ciy favoriser. du ma favoriser kenn xam naa ne ñoom ñaar ku ne mën ngaa daan sa morom ndax ñoom ñaar ay mbër yu ñeme lañ ay attaquant lañu te du ñu tricher ci làmb. Mhm. moo tax ma bëgg rek ñi leen di gunge jàppale leen ni ngeen leen di jàppale mooy ñu fexe ba événement yeeg li am yëpp dara bañ cee yàqu. ba le 5 novembre ñu dugg si ci làmb ji ànd ak seen préparateur musique yi ànd ak seen écurie sotti koo gàllaaj yi def li ñu war a def di wàññeeku ba mu des kenn dem ba ci digg géew bi ñu ne Modou pare nga Ama pare nga ñu bëre. Mm-hmm. contrat bi dog leen a wàcc mais fii ak ñi ngi koy yàq contrat bi du leen wàcc kon nañ dimbale mbër yi. Mm-hmm. pour ñu bëre que gañ meilleur ji mën a continuer. Mm-hmm. tey boo nekkoon coach Modou Lo tey lan nga koy wax tey boo nekkoon coach am waaw Modou Lo su ma doon coach am mooy euh, li ko gars yi naan Ama parewul bu mu ko gëm. Mm-hmm. Ah, loolu dama koy wax loolu laa koy wax dama naan ko li la gars parewul bu ko gëm ndax Ama daan la rek la bëgg. Mm-hmm. pour doon roi des arènes kon parewul moom bu ko gëm. Mm-hmm. su ma doon coach am loolu laa koy wax waaw. tey gis nga ni dafa làmb ji day gaaw wala làmb ju yeex lay doon. waa xam nga xam naa ne bu gaawee euh, lu ne mën na ci am mais bu yéexee mën naa doon avantage yu Modou ndax moo gën a bëri lu mu bëre combat bu yàgg ba ay décision arbitrale euh, gagné na ci ay combat ci combat yu duré kon damay xalaat ne bu duré mën naa doon avantage yu Modou Lo mais Ama nag façon bi muy bëree bu ko changé wul gaw mu bëre combat bu yàgg ndax man foo taxaw ci sa la jëm attaquant la laaj naa ko Modou sax ci seen signature ba fële euh, mbuur ma ne ko dañ ne li ngay bañ la Ama di bëre bu arbitre sifflé da lay sëkkatal mu ne ma bu ma sëkkatalee dañuy daje mu ne ma bu ma sëkkatalee ma ne naa mu ne ma dañuy daje. kon moo lay wan ne ñoom ñaari mbër yi bëggante nañ ku ne xam nga. waaw làmb nag moo demee noonu. ñaari mbëri seen dayoo moo tool noonu mais ñi leen dimbale rek nañu indi mental tuuti. pour jéem a sowee làmb ci man loolu laa gëm. tey yaakaar nga ni ci xeex lay jeexee wala ci bëre. waaw tout est ñoom mën nañu xeex jël la am mën nañu dóor nit mu kawote mën nañu dóor nit mu mu tërëbise ñu dal ci kaw mu daanu maanaam du ma écarter dara. Mm-hmm. mën na jeex ci xeex mën na jeex ci bëre. ci combat boobu ndax ñaari bagarreur lañu waaw. mais est-ce que jàpp nga ni làmb bi dina am sécurité vu que ni mu terminé Gambie. waaw mais xam nga sécurité bi moom ñoom ñëpp ñëpp ko war a bëgg il temps que mbëri communiquer ak seen waa kër yi parce que si imaginel bu ñu ba ci biir làmb ji làmb ji yàqoo ci biir làmb ji te te te bëre mm-hmm. mbëri duñ fayu. Mm-hmm. te combat bi dañ koy jàppaat. su boobaa dimbale woo mbër mi ñaari camp yëpp muy waa parcelle nee naa la fii ak dugg siwun ci làmb ji ànd ak seen staff ànd ak seeni gàllaaj ba dem ci digg géew bi jot ba ñoom ñaari mbëri arbitre sifflé ñu bëree contrat bi wàccagu leen kon li jaadu mooy ñu accompagner mbër yi jàppale leen ba arbitre sifflé ñu bëree que le su boobaa la contrat bi di doog a jeex kon nag boo bëggee mbër mi mu signé contrat da nga ko war a jàppale ci réussite événement bi waroo bàyyi benn détail loolu mooy li jaadu. Mm-hmm. waaw te instant bi dañoo jour dañoo gis ni que mbëri euh, dañuy jël li nga xam ne moo di certificat médical di ko joxee nu mu leen neexee ba ba tax na yu bëri sax ñi ngi annulé lamb bi à cause de loolu. waaw loolu sax am na benn euh, lu ci CNG génne. Mm-hmm. Euh, xam naa danaa la ko wan di nga am. Mm-hmm. ndax léegi laa ko jot bi ma signé contrat cité bi léegi ak la de guerre. mujj na lu CNG bind. wane nañ ko léegi médical boo siñee combat mi ngi nii léegi combat bu ñu xas régularisé doo toog ba mu neex la rek nga indi sa médical ci bitti pour reporter làmb ji léegi combat bu ñu xas régularisé pour ñu reporter làmb ji boo xalaatee ne da nga am blessure wala nga feebar da ngay ñëw ci médecin wu seen CNG bi bu xoolee ne mënatoo bëre ci lañ lay dogo bindal médical lañ la doon wax rek de boo indee sa médical dugal ñu ne docteur du weddi morom ma CNG def contre expertise yooyu yëpp dindi nañ ko léegi combat bu ñu xas régulariser pour ñu reporter ko. Mhm. da ñëw ci médecin wu CNG bi. Mhm. ñoom ñoo lay bindal médical report da ko am. Mhm. loolu bees la mi ngi nii. mu nekk tamit lu am solo euh, tamit mbëri ñi ngi kaas ni ko euh, waa CNG maanaam bu ñu feebaree du leen jël en te ñoom ñi ngi fay assurance. waaw mi ngi fay assurance mais xam nga loolu moom dañ koy wax rek xam naa ne blessure bi daal ci saa si booy doog am blessure ci terrain bi ci jouru combat bi ndax ndax assurance bi ci bésu combat bi rek la nag. Mm-hmm. mais du après combat. Mm-hmm. mais biir combat nag boo ci amee blessure wala dara am na nooy toppatoo am na fooy jaar am na procédure booy jaar. Mm-hmm. bu ko defee CNG assurance bi ñu signé mbër yi danañ la danañ la topp pour faj la mais waxuñ nag ku gaañoo feneen mais ci biir combat moom boo gaañoo dañ na d'ailleurs boo gaañoo sax dañuy jël sa licence boole ko kii nga moom lañ la yóbboo hôpital boobaa am na lu lu lu assurance bi di du jël en charge mais yegg guñ ci nag fu mbër amee blessure rek assurance bi jël en charge non yeggaguñ foofu. Mm-hmm. comme feebar bi la wax des mbër feebar. Ah, gis nañ sax am na ñoo xam dañ leen di ketal. wala ñuy dama la ko leeral. yow koy après ku ne wax xalaatam dama ne la assurance foofu rek lay jëlee en charge. Mm-hmm. jour combat ku gaañu ci combat bi. Mm-hmm. leneen li assurance bi yoonam nekku ci waaw. looloo am. dëgg <laughs> kon tey Père Max soo doon bàyyi li nga xam ne moo di conseil yu mbëri que sa soit mbër bi ak li nga xam ne moo di amateur bi pour làmb ji mën a neex wala jeex ci jàmm ku ne dem sa kër tey lan nga leen di wax. waa ñu defaraat jikko yi rek. sa caméraman xam nga fii di nga mën a jël xoola stade bi ni mel xoola. Mhm. xoola chaise yi ni mu dammoo xoola. Mhm, mhm. xoola chaise yi te yëpp fan see koy jël di ko sànni ah te bijou bi ni mu rafetee ñëpp rafetlu ko xool mel yaa ngi xool gis nga. gis nga bi. xoo gis nga bleu bi ci kaw gis nga dara lépp xale yi koy damm di ko sànni. de bu sa mbër daanee nga damm sées. te li ci gën a métti mooy sa mbër day daan sax nga damm sées waxuma la ñu daan ko nag sa mbër daan nga kontaan jël sées di damm. waaw li yooyu yii dafa war a jóge mbër mu ci ne sa morom mooy sa trésor ay adversaire ngeen pour ay minutes mais du ngeen ay ennemis nañ ko xam. dëgg te it nag boo yàqalee mbër mi ne moom nga bëgg. Mhm. te mbër mi yaakaar làmb rek. bu làmb ji tëjee yow da ngay liggéey mbër mi moom def lan lu muy dundee du mooy perte mhm. jot na pour ñuy jàppale mbër yi xam loolu mhm. xam ne mbër yi duñ ay ennemi ay adversaire lañ pour benn moment mhm. bu jeexee ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax bu boo bàyyee da ngay bokk ci regroupe da ngay bokk ci euh, regroupement yi rek les sages Tapha Gueye ko jiite ay ancien gloire rek a fa ne ancien gloire yi Manga 2 ko jiite ay adver ay ancien gloire rek a fa ne te ñoo daan bëre kon nañ ko rafetal ndax lu yàgg yàgg dafay jeex. Mm-hmm. loolu laa am leçon bu ma leen di jox xam ne moo di site bi ak mooy li nga xam ne mooy contrat bi bi nga signé nan nga gisee sa sa mbër. ah non di ko waajal rek di waajal xam nañ ne combat bi mag lañu am. Mm-hmm. mais ñeme nañ ko bëgg nañ ko nag. waaw mm-hmm. ah, ñeme nañ combat bi bëgg nañ ko. xam ne kin dajeeg neexul daan. mais ñun ki ñu indi wóolu nañ ko nag. te bëgg nañ combat bi lool te ñu ngi ciy am yaakaar. Mm-hmm. Uh-huh. donc merci beaucoup Père Amangan ñu ngi lay bàyyi nga daal def sa kàddu gu mujj rek ñu daal di xam ne moo di kàddu gi. daal waaw euh, di sant rek di jégalu nag ci yeneen siid bu buñ ma gisee nga jël ma dana xaw a ndax man damay daw siid yi. dëgg la euh, dawuma ko ngir mais xam nga euh, damay bañ a juum ci kàddu. Mm-hmm. waaw ndax moo tax bu ñu la làmbool ak di la jaay connaisseur. ba ngay juum doo ko tey mais léeg-léeg du mën a ñàkk ndax it nag ñi ñu jiitu woon noonu lañ ñu doon jàppalee di ñu ko yombalal mhm. tey yow it ngay xale bu yaru mhm. euh, léeg-léeg sax ma gànta la ba defe ne dangay ngay mhm. ci laa xam ne tàggat nañ la ci ci métier mi ndax yow yaa soxla yow mi soxla waroo xaddi dëgg la waaw ñu ngi lay ñaanal rek bonne continuation Sénégal jëm kanam jërëjëf. ok donc merci beaucoup li la la indiloon ci biir Univers Info TV di leen wax chaque jour daw leen gaaw ngeen abonné le meilleur rest à venir ak Univers Info TV l'information dañ leen koo jox ba mu mat sëkk merci beaucoup. <laughs>